gare routière bu sànjara nag ñu taxawal ko lu toll ci ñaari at dong chauffeur yi fare ca boobee garage li ñuy sàkku jamono jile mooy nag ñu jox leen beneen bërëb boo xamante ne nag dañ fay gaar seeni woto maanaam rek beneen gare bu mucc ayib ànd ak jamono mel ni gare bu Mbour wala sax bu Caajaay yooyu chauffeur daal dinañuy àdd ci beneen wàll jëm ci accident yu metti yi nga xamante ni ñu koy faral di nemmeeku foofee ca diwaanu sànjara rawatina nag ci li nga xamante ne moom mooy route ba. ñu ngi lépp nag li suñu monsieur le maire nag moo ñu defaral fii ñu nekk ndax amuñu woon lii bu njëkk ñun nag ñii si ginnaawam suñu sañoon nit mu defal ñu gaara bu gën a moderne bii te xam naa dinañ ko am ndax am na ñoo xam ne ñoom la fi jiital ñun day wax ak ñoom ndax ñun amuñu droit jéeg dem ci maire dañuy ànd ak ñoo dem ci ñoom ñoom wut joon nga fi ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne bii ñoom la jiital ñun ñoom la ñuy waxal luñ bëgg it ñoom lañ koy wax ba lu ci nekk mu jaaree ko ci maire. ndax suñ maire xam naa ne ñun dañuy defar gaar bu baax ndax wax nañu ko te li ñu wax it doy nañu kontaan nañ ci moom it yàlla ko yàlla jàppale ñun waa Sandiara xam nga tali bi rek accident yi moom bari na mais nag yàlla mi ngi def jàmm bi dëkk bi moom vraiment yàlla mi ngi def jàmm heureusement xanaa ci li ñu war ñu daal dëj bi dañu am accident ñu dem ca mais it yàlla da ciy def jàmm ndax oto moom fu mu dayaloo accident mënu ñàkk mais nag ñu ngi moytu sofër yi ay jàmbar lañu ay góor lañ am na respect ci ñëpp lu leen wax it ñu ngi ciy jaar lu ñu leen jaaxal ñu laaj ñu wax leen ñu daal loolu mooy suñu xalaat te daal Sandiara daal moom lañu am daal te ku ñu jàppale daal lañ bëgg bëgg mooy suñu dëkk kontaan nañ ci waa Sandiara loolu. garage bi de ñu ngi koy rafetlu moom suñu papa yu baax lañ fi nekkal xataluñ ñu ci dara ñu ngi ñuy jàppale di ñu encouragé waaw di ñu yokk xalaat waaw di ñu yokk xel. waaw ñu ngi góorgóorlu tamit di leen jàppale ñoom waaw ñu ngi ciy gis suñu bopp moom. non fii moom fii moom wax dëgg yàlla moom amuñu fi benn problème moom sincèrement. waa accident yi moom accident yi moom waaw xanaa ñu wax ma wax suñu mbokk chauffeur yi ñuy def ndànk rek di daw ndànk rek waaw booy dugg si biir dëkk nga teggi sa tànk rek def ndànk dal ndànk yàlla baax na. gaaral bi ñu sunu jàmm ñu sunu salaam bu nu xëyee ñëw daw fi sunu wërsëg yóbbu sunu njaboot. nit ah, ñi amul benn jafe-jafe ah yi nag moom oto moom xam nga ñaar ay nit sax bu nuy dox léeg ñu daje waxuma laa nag ay oto ay nit sax bu ñuy dox léeg ñu daje mais mbir mi moom dañuy ñaan yàlla rek lépp lu ci mën di am rek mu gën a wàññeeku bu baax a baax. soxla nañ jox ñu garage ndax xam nga lii du garage presque lii bu fi kaar taxawee xam nga fii ñaari bis xaju fi. te dëkk bi développé na développé boo xam ne nii fi mu nekk presque boo ko doon natt quatre koñ yëpp bu ne mat na deux cent mètres wala ay un kilomètre nangam deux kilomètres dëkk bi boo ko doon natt koñ bu ne bu ne kër yi sori na deux mètres deux kilomètres trois kilomètres ak ñi ci àll bi ñëpp fi la ñuy duggee bu nu sañoon ñu defal ñu garage mel ni garage su Mbour buñ ko mun ñu defal ñu garage Caajaay ndax dëkk bi màgg na màggaay boo xam ne nii fi mu nekk nii macha allah te day gën a màgg Sandiara moom daawuñu ko dégg mais léegi foo man di nekk ci àddina rek sunu monsieur le tax na ñuy dégg Sandiara ñoom ñu ngi koy sant di ko gërëm sëriñ Gueye Diop ñaan lépp lu muy dugg ci gouvernement bi daal mu yokk garaatam gën a yokku ndax moom bu yokkoo rek ñu yokk ndax iñaane wun dara moom dafa bëgg dëkk bi doo dafa bëgg dëkk bi maa ngi moom ma sosaloo kër mais dërëm sax bu ko amee bëgg na koo bokk ak dëkk bi